bismillaahi rahmaani rahiim yaa salaamu yaa salaamu yaa rahmaan gannaaw ba nu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi sant suñuy waajur maa ngi nuyu askanu senegaal maa ngi tudd Adja Marème Diong présidente LGN law be géwal ñeeñoo érable di Sénégal maa ngi nuyu réew mi di nuyu sunu kilifa bi nga xam ne c'est un ci Sénégal nekk référence ci Sénégal di sunu kilifa di Alaaji Mansour Mbaye ma bëgg leen tàcc ndax kat ñun géwal lawbe ñeeñoo amuñu référence bu ëpp Alaaji Mansour surtout ñun ñi nga xam ni ñun ñooy la nouvelle génération te LGN bi muy juddu dafa dem ba ci moom ñu tàllal ko loxo mu jox ñu ndigal kontaan ci LGN ni dem leen ngeen doxal ndax nag lu amul kilifa baax kon ñu ngi ñaanal sunu papa suñu maam El Mansour yàlla na gudd fan. ñoo ngi nuyu réew mi les sénégalais et les sénégalaises ñoo ngi nuyu. le président de la République, monsieur Macky Sall, parce que nous sommes des Sénégalais, te moi le président de tous les Sénégalais de la diaspora. kilifa avons yi di nuyu kilifa aada yi ci këru diine yépp nag ñu ngi leen di nuyu ñun waa LGN Lawbe Géwël ñeeñu ràbb di leen tàllal loxo ñu ñaanal ñu te incha allahu taala fépp fu kilifa diine nekk danañ fa dem tàllal leen suñuy loxo fépp fu kilifa aada nekk dinañ dem tàllal leen suñuy loxo maa ngi nuyu nag membre LGN yépp mooy lawbe géwël ñeeño di nuyu aussi waa diaspora parce que LGN mi ngi ba diaspora membre LGN yi bari nanu Italie France Cap-Vert Bénin Djidda ña nga maa ngi nuyu nag sama membre bureau yi nga xam ne man mënuma dara ñoom ñoo mën muy membre bureau LGN ndax benn loxo mënul dara mbooloo mooy doole muy ay jàmbaar jàmbaari jigéen yoo xam ni jàmbaar yi fakk dëkk lan ñoo xam ne lu góor mën mën nañ ko ci liggéey bi ma bëgg ñu tàccul ma membre du ONG may wax rek ni lancement officiel bi li ko waral mooy Lawbe Géwël Ñeeño Ràbb dañu bokk ci Sénégal bokk ci histoire Sénégal bokk ci valeur Sénégal te loolu ñun ñi LGN avant ñuy ñëw fekk nañ fi sunuy papa yoo xam ne ak suñuy nijaay ak suñuy yaay yoo xam ne prôné nañ ko bëggewal ak ñeeño ak ràbb àddina yépp xam leen waaye ñun waa LGN dañu ñëw avec un nouveau programme programme bi mooy entrepreneuriat féminin ndax ku nekk xam na ni géwal ñeeño lawbe ay liggéeykat la ndax dañu bari ay suus yoo xam ne ñi ngi ciy ne ndax cordonnière yaa ngi ci couturière yaa ngi ci portière yaa ngi ci artist yaa ngi ci woykat yaa ngi ci lépp la lawbe géwal ñeeño ràbb indi ndax ce sont des ay métiers la yoo xam ne ku ci nekk muy géwal bi dafa doon tëgg ñeeño bi di yor mbaaram ràbb bi yor tisaraam lawbe bi nekk di defar ay gënnam ak i legetam ak ce sont des métiers moo tourné nekk lawbe géwal ñeeño loolu nag la LGN di ñëw valoriser ko indi ko ànd ak jigéen ñi ñu liggéey parce que liggéey boobu ñuy liggéey liggéeyu informel la LGN ñëw nag pour def ko professionnel ba nga xam ni dañuy jàppale jigéen ñi dimbali leen ba nga xam ne seen alal du réer ak nu ñuy def ba mën a maîtriser li ñuy liggéey ba nga xam ne day nekk des entreprises loolu moo gën a tax LGN ni ñëw artistes yi nga xam ne dañ fi nekk di way te amuñu ku leen produire te amuñu fu ñu jaar pour ñu produire LGN jàppale leen ba nga xam ne dañuy mën a dem ñu produire leen te kenn du leen nax te seen alal du réer lawbe yi nga xam ne dañ fi nekk di liggéey ci mbirum leget fer

ñeñu yi nga xam dañ fi nek aussi yor seeni magasin di jaay ay or ay bijoutière wala ñu nek ci mbaar mi ñu jàppale leen parce que tout temps nga dégg ni ah agressé nan fi ben bijoutière wara gañ nan fi ben bijoutier jël alalam wala yooyu yépp ñu jàppale leen ba nga xam ne seen liggéey dañ koy mëna maîtriser te kenn du leen nax loolu moy entrepreneuriat féminin commencé ci fi ndaw jëmale ko ci mag LGN aussi mi ngi programme liggéey boo xam ne ñépp la ci woo amul xajji amul seen amul étiquette it politique askan wi moo ko tax a jug ak liggéeyal réewam booy liggéeyal sa réew nag doo bàyyi kenn ñépp ngay woo may leen ñu sommes aussi au même pied d'égalité LGN ibbi na ay buntam pour fépp foo xam ne géwal mi ngi fa lawbe ñeeño ràbb LGN ibbi na la ko ndax boo seetee LGN mi ngi ci quatorze régions du Sénégal mi ngi Louga mi ngi Thiès mi ngi Ndar mi ngi Mbour mi ngi même dans les arrondissements kon LGN réewam moo ko tax a jóg ñuy ñaan nag réew mi tàllal leen loxo ñu ñëw jàpp ci liggéeyu LG parce que loolu mooy Sénégal suñ fi jëlee loolu mbay lañ fii teg ak leneen ak leneen te jigéen moo yor réew te boo xoolee LGN la majeure partie yi nga xam ne ñu ngi nekk ci LGN ay jigéen lañu ma bëgg ñu tàccul ma jigéenu LGN yi nga xam ne ñu ngi dans monde partout ñuy wax rek ni lancement officiel bii ah liggéey la ñu gën a woote LGN li mu gën a woote mooy liggéey ak protéger géwal lawbe ñeeño ràbb ba réew mi xam ne kat ñun bokk nañu ci bokk ñiy développer le Sénégal loolu moo waraloon tey ñu woowoon journaliste yi ñu ngi leen di di leen sant di leen gërëm ndax nag réew mi toll na foo xam ne il faut que ñun ñeeño yi lawbe yi géwël yi ñu wane suñu bopp ndax nag bu ñu ñëwee ci histoire Sénégal këru diine yépp dañu am géwël dañu am ñeeño dañu am lawbe loolu fii lañ ko fekk ci Sénégal ndax buur yi njëkk ya dañ daan am ñooñu ñépp ñu nekk de fédérateurs fekk nekk ñoo xam ne ay régulateur réew mi lan ndax mënoo tudd benn histoire du Sénégal te tuddoo lawbe wala nga tudd ñeeñoo wala nga tudd géwal boo tuddee buur yi ba nopp te it réew mi ñu nekk fi des facteurs de développement facteur de développement boobu nag moo tax LGN judd pour mën a protéger liggéey boobu nga xam ne lawbe yi ak géwal yi ak ñeeñoo yi ñu ngi koy def jële leen ci informel dugal leen ci professionnel loolu nag moo doon sama kàddu may sant waa LGN yëpp di sant réew mi di tàllal réew mi loxo di nuyu le président Macky Sall di ñu koy tàllal loxo nag ci LG mu jàppale waa LGN yëpp ak kilifa diine ak kilifa aada yi je vous remercie